li ma leen di indil ci xibaar yu bees mooy fas yéene naa ñu tàmbali programme assainissement bu bees bu am am am solo boo xam ne dana nekk sax Sénégal yëpp waaye li ñuy wax épicentre bi li ëpp ëpp solo dañ koy tàmbali fii ci Kër Massa programme boobu projet projet si la bokk ak wa banque mondiale waxtan nañ ci ba pare lu tollu ci fanweri milliard mu ngi ci dana la quartier yu bare bare ma ngi yor sama téléphone fi waye du aajuma ci ñëwaat mais dal gox bi di unité 3 Camille Basse jëm yenen unité yi alaaji paté ak liko wër fi ba Kër Mas fi euh, Malika fi ba ba ngay dem jaxay programme yoy yëpp danañ ko tambali dekk taw bi dëgg nawet bi jeex lu am am solo la waaye li ma leen di ñaan aussi mooy bu ñu defee lii bu ñu demaat ci yeneen xur di fa def ay dëkkuwaay parce que ndox moom fu mu daan jaar saa yu ndox ñoo def fa lay jaar kon dinañu fexe ba lii ñu engagé ko mu am solo programme national la nag kon du gox bi rek parce que am na yeneen gox yu am jafe-jafe yoo xam ne xëy na jotuma fa yegg waaye nañu xam ne programme bi programme national la ONAS dina ci liggéey bu baax a baax ak euh, yeneen kuréel yi su ko defee fii ak mois d'octobre dinañu pare lëpp luy préparation ak budget yi pour que ñu tàmbali liggéey bi